asalaamaaleykum internet Sénégo TV ñu ngi leen di nuyu di leen di jox seen wàccuwaay di kontaan ni ngeen ñuy toppee di taaxul suñu programme ci noonu aussi ngeen di topp suñu plateforme yëpp ci YouTube ak Instagram ak TikTok ñu leen di jox rek information di topp it actualité su ko soxla tey nag topp actualité boobu moo tax ñu ñëw fii seet si ki nga xam ne mooy Mouhamed Mbaye Mouhamed mbay ñu ci bëri xamee ko ci alias Lafagne VIP moom nag. kenn du ko présenté parce que gis nañ ko ci internet bi gis nañ aussi ay sorties yi nga xam ne dakay def ñu bàyyi ko rek mun mu nuyoog suñu internet yi après nag ñu ñëw nag dugg ci waxtaan bi Mouhamed ñu ngi lay nuyoo. waaw maa leen di fay bu baax di di leen fay eh, seen équipe technique bi ak yow mi xam ne eh, yéen ñëwoon pour jël ma interview di nuyu sénégalais yëpp di nuyu samay waajur ak samay waajuru jabar ak samay mbokk jabar ak samay mbokk Euh, voilà di nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan ci internet bi voilà di nuyu ñëpp fans yeeg ñëpp quoi voilà di nuyu sama mbokk la fa ñi aussi. ak Mouhamed tey dinañ commencer dans un premier temps wax li nga xam ne mooy actualité am wante dinañu wax exactement li nga xam ne mooy euh, sëddoowam ñu naan ko Mouhamed Lafagne VIP bi dinañu ko expliquer mais aussi dinañ dugg ci actualité people bref un petit peu ci actualité société wala politique ça dépend ci moom position wam wante dañu ñëw rek Mouhamed tey nga ñëw définir sa bopp Lafagne VIP. lu indi tur bi. bon Lafagne VIP moom du du lu grave quoi tur la boo xamante ni euh, genre dama ko jox suma bopp parce que handicapé ci wolof moom la ñuy wax laay waay laago wala wala nga wax lafañ mais lafañ bi moom dafa doon loo xamante ni euh, auparavant au Sénégal c'était une insulte boo ko dee wax koo xamante ni euh, d'ailleurs dafa am handicap. donc c'était une insulte donc euh, le but c'était de maanaam jële fi loolu ba nga xam ni euh, képp koo xamante ni lafañ nga euh, maanaam nga mën a nangu sa lafañ gi ak nangu ñun aussi li ñu dal moo tax moo waral tur lafañ VIP donc ndax parce que xam nga saa yoo gisee rek sénégalais bu njëkk buñ daan xas nit dañ koy wax lafañ bi nga doon bu fekkee lafañ la quoi mais léegi bu fekkee lafañ nga yura plus de porte boo xamante ne dañ fay jaare pour di la stigmatiser wala ñu lay vexé moo tax donc ñu indi lafañ bi teg ko voilà voilà. VIP bi aussi gis nañ ne yaa ngi koy dund te gis nañ voyage yi nga xam ne Mouhamed mi ngi koy def gis nañ aussi Mouhamed star yi nga xam ne day affiché wu ak ñoom mu nekk VIP bi nekkul benn genre sodo rek mais aussi yaa ngi koy enjoy comme ni ko xale yi di waxee. Euh, ci côté boobu moom VIP bi moom du dara loo xamante ni lu dul euh, gëm suñu bopp rek moo waral euh, tey jii nii ñu mën a toog ak ku ne mën a waxtaan ak ku ne mën a dem fu ne ci lépp ci lafañ VIP bi la rek quoi VIP bi moom may maanaam nangu lafañ bi ba di ko tuddee sa bopp ba nit du la ci mën a vexé wala mu lay affecté VIP moom maanaam mooy aj level ba mu kawe donc waaw waaw lafañ yi moom level level lafañ yi dañ koy aj ba mu kawe moo tax ku ne dañ koy mën a toogal fu ne dañ fay mën a dem ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ko dañuy laaj li nga xam ne mooy level bi ba tey bañ ko ñu xeeb mais tey ci xeeb boobu dañu gis ci internet bi dafa am benn polémique bu ñëw créer li nga xam ne mooy frustration ci ñenn ñi créer tollé ci ñeneen ñi ñu gis aussi yow Mouhamed def nga ci sorti ci benn panel daal di wax sa xalaat mu nekk kaaw umu ak ki nga xam ne mooy boos tey euh, sa position déjà ci situation boobu nan nga ko jàppee. bon man ci situation boobu aussi euh, dafa ma metti nag li tax mu metti ma mooy euh, dafa am loo xamante ni dama ko sumb hmm? woote ko aussi donc bu fekkee dafa am kenn ci sumay naataango koo xamante ni lafañ la aussi muy bëgg a saltel loolu. daf may metti mooy euh, situation bi nga xamante ni actuellement mu ngi nekk di di tas internet bi di tas TikTok bi surtout ñu ci def ay direct di ci waxee tout maanaam tout le temps parce que lafañ bi lafañ lii lafañ lii lafañ lii euh, ñun wootewuñu loolu quoi ñun gëm suñu bopp la ñu wootee à ce respect ak imposé wu donc nu ma concevoir kenn di ñëw euh, di dindi loolu <coughs> pardon mënu ma concevoir kenn di ñëw di dindi loolu wala di ko salteel voilà te ñoom li ñuy def nii sax xamuñu ni erreur la parce que tey ji nii rien tey ñun ñi nga xamante ni rek ay lafañ lañ bu ñu neexee mun nañ leen porter plainte parce que stigmatisation la loolu la ñuy wax stigmatisation la envers notre propre personne voilà stigmatisation la ci lafañ yëpp du ko tout le temps xam ñu ngi tudd lafañ li yëg li yëg li ñoom ñu ngi ñuy tooñ quoi voilà te yaakaar naa ni tooñ baaxul bu ñu gëmul seen bopp ñoom loolu ça n'engage que mais nag qu'il respect loo li nga xamante ni waaw ñun dañ ko sumb taxawal ko quoi voilà loolu la. li nga xam ne mooy problème bi mooy problème mu visa ku am ki war a faju ki war a dem ak ki ñu ne du dem stigmatisation bi ban côté la ñëwee stigmatisation lay doon wala profit wala ban genre nga bëgg a wax foofu exactement. bon stigmatisation c'est simple euh, maanaam mooy maanaam li nga xam ni àq ak yelleefu doomu aadama bi la maanaam voilà nga ko ci nga ko ci tooñ wala di ko ci xas wala di ko xoole benn bët bi donc voilà loolu mooy stigmatisation toñoom aussi. li ñuy def nii yaakaar naa ni euh, tooñ la bu doon Europe tey jii nii les associations d'handicapés là dañ leen di porter plainte te dañ ci am problème parce que di dund ci du euh, maanaam lafañ laa di waneel xeebeel ak di taxawee taxawaayu xeebeel ba maanaam ñu la ci tudd ci tudd sa moroom loolu ak tooñ la voilà loolu la ko mm-hmm. non musuma leen sax gis et pourtant ñoo dëkk ñoo bokk benn dëkkuwaay musuma leen gis wallahi azim bu dul internet ñoo bokk dëkkuwaay fi ñu dëkk voilà musuma leen sax gis bu dul internet voilà parce que. Euh, man dafa loo xam ni moom Olof Njaay dafa ni diiroo ko yemali ngam tonga ko yemali mbagg man tey jii bu may jëflante lafañ yi nga xamante ni maanaam euh, bëgg nañ ko jëflanteeg ñoom wala ku leen jàppale wala ku leen teg ci yoon bi nga nekk ñu àndandoo ñu ñëpp liggéey ñooñu laay jëflanteel en fait voilà loolu tey Mouhamed tey sa position ak ci coow li tey est-ce que tamit ñoom it euh, ci seen côté duñ jàpp ne yow. dangaa bëgg a profité dugg it ci bës bi ndaxte gëj nañ laa dégg Mouhamed. man xam internet moom jëlewu ma ci bës li li ma ciy def dama ci kan non fayu ma de barki Seydina Mouhamed man fayeku ma ci TikTok man li maa koy ñax barki alxuraanu karim man fayeku ma ci TikTok barki Seydina Mouhamed am naa chaîne YouTube chaîne YouTube bi. Euh, est-ce que du deux mille deux mille dix-sept laa ko tijji woon est-ce que du sept cent trente et un abonnés ci nekk ba ma ko tijjee la am sept cent trente et un abonnés bu jëm yàlla tey jii nii est-ce que du ñaari vidéo ñoo ci ne xaw man yooyu du yooyu man euh, tardé lu ma fenn quoi parce que li may def maanaam euh, dama koy def pour véhiculer message boo ci dee xaar fay rek maanaam je me ni boobaa li ngay def du naturel parce que. Euh, xaalis bi monétisation bi nga ci gën a focaliser wu quoi fayuk yàlla moo gën bu bu doomu aadama non ban buzz man. Mouhamed gëj nañ laa dégg gëj nañ laa gis à part yenn vidéo yi nga xam ne yaa ngi koy def ci TikTok est-ce que ñëwoo rek nekk ci coow li rek Mouhamed nga ñëw dugg ci sumb naan man tamit naa ci takk rip amaale ci buzz. no parce xam man gisoom ba léegi ma def ci vidéo sama contre def ma ci vidéo donc su ma yoon nekk ñoo ma ci interpellé ma ciy wax waa aw ma seen jot en fait man ci dimbali la fa laa nekk ak xool yoon bi nga xamante ni ñun la fa ñuy war nañ fa jaar pour réussir suñu àdduna ci loolu laa nekk nekkuma ci ay ay coowal buzz ak yooyu no man dundeewu ma noonu ban buzz man man bokk naa ci ñi njëkk am TikTok Sénégal 2018 xam nga bëri fu woon ñu am TikTok man 2018 laa am TikTok Sénégal fii c'est juste nag dafa am noo xam ni dundeewuma ko mooy du ma wax du ma kaa du ma dugg suma yoon nekkul samay vidéo tout le temps éveillé nit ñi ci wàllum handicap la wala dugal ay vidéo comique <laughs> donc xam nga yooyu moom boo ko dee def euh, maanaam fi moom boo dul kaa j'aime yeeg yooyu du yéeg mais j'ai un million cent d'abonnés voilà j'aime yi nag euh, maa ngi ci huit millions de de j'aime xaw ma euh, parce que tey bu fekkoon 2017 ak léegi ni ni gars yi di di dundee ci TikTok bi pour am xaalis noonu laay dundee kon heure bi kenn waxatu ko waaye. ba tey ci kaaw Oumy la ñuy taxaw ndaxte ummi euh, bi mu defee ci internet bi def vidéo ñuy demander ba extérieur aussi ñu ubbi cagnotte moment boobu mu Mouhamed pourquoi réagiroo yëgoo woon wala bëggoo woon entrer en contact wala lan moo bloqué woon sa communication vu que da ngay cause des personnes à mobilité réduite. waaw mais xam nga tey jii nii. man bu ma xëyee damay nekk suma yëf nit ku nekk yaa ngi xëy di nekk sa yëf donc am na loo xamante nit ki bu ko sentiré ba koy def lu ci sama yoon man moom ma réew mi di duma benn njiitu lafañ bañ na ko ba sama kuréel kuréelu bopp laa yor ah, mais bien sûr il faut que je sois précis ci li wax du ci intervenir nit ki bu yore tiktokam li mu ciy def moom la concerné lu ci sama yoon sama yoon nekku ci mais dafa am loo xamante ni dafa jéggi dayoo mooy maanaam buñ ñu yàpploo loolu moo tax ma ciy wax mais hormis loolu li muy def sama yoon néew ci lu ci sama yoon moom moo ma njëkk a lafañ man 2017 laa lafañ moom bi ma moom attends man bi may ñëw ci lafañ gi fii di ko di imposer suma bopp ci réew mi à ce que ñu gëm ñu kenn kenn imposé wul boppam ci Sénégal gii jule le o haut fort maa ko wax man maa fëgg man suma dënn wax ko réew mi lafañ bu ñu fi respecté lafañ VIP moo tax maa ko fi wane maa ko fi jëfee maanaam boog maa ci gën a fës loolu la yàlla dogal yàlla suñu borom mooy dogala ah. loolu la yàlla dogal quoi donc li muy nekk tey jii nii bu deful woon erreur bii nii nga xam ni moo am nii bañ ma ci interpellé du ma ci wax su ma yoon néew ci ndax problème c'est la deuxième fois je sais pas c'est la troisième problème bi ci am dañ may wax man leen duma ci wax ndax su ma yoon nekku ci sama yoon newu ci mais trop c'est trop bu ñuy yablu seen bopp nañ yablu seen bopp mais bu ñu yóbbaale suñu tur bañ naan lafa lii lafa ñuy lee loolu moo tax ma ciy wax voilà loolu rek la. non jàll ci leen comme lan. vu que da ngay bañ ñu yablu leen ndax ci wax ngay yem pour alerter wala it di nga poser acte beneen bu dul wax. waaw mais sa doom sax am na foo xam bu fa tolloo bu defee lu dul noonu doo ko dóor d'autant plus que citoyen lañ comme man moom ma leen. mais juste que dama leen ni interpeller rek pour wax leen ni leen nañ ñu dimbali ngir yàlla buñ ñu yabloo li ñu nekk di xeex dañu respecté loolu point jeex na amul leneen. kon bi nga xam ne collectif bi leen dimbale mënuñoo xaar yow tamit nga annoncé benn plainte pour ñu régler wala du genre. ku may lu tax ma leen di lu ma jot ak ñoom non plainte pour lan. ñi leen plainte aussi ñoom ñoo xam lu tax ñu plainte leen ça n'engage dañ koy régler entre eux mais man li ma ñor mooy à ce qu'on respecte ñun la fa ñi buñ salir suñu peau li ma intéresse encore une fois plus parce que dañoo diñ woote dignité woote respect ci ñun woote imposer suñu bopp parce qu'on fait partie de la société nit laa comme yow lan la lan mooy différence bi dañoo dagg suma tànk li suma maayen mën a xalaat wala li ma mën a def mënoo ko def lan la c'est quoi problème donc loolu rek laa woote sama yoon newul ci seen i plainte ak yooyu li ci sama yoon <laughs> yoon ci waaw ñuy tourner chapitre boobu tey position boss est-ce que validé nga ko tey boo amoon it message boo xam ne moom nga koy wax vu que sa femme nee nañ dafa feebar te dafa war a faju te benn visa moo am lan nga koy wax en tant que góor en tant que boroom kër en tant que koo xam ne it dangaa yox sa soxna ci kër kaa bi boo ci taxawoon mu nekk sa cas. non man dafa am loo xam ni aussi duma ci mën a prononcé diggante jëkkër ak jabar euh, diggante jëkkër ak jabar du ma ci mën a prononcé wu prononcé wu aussi parce que dafa am sensibilité bu ci nekk donc euh, seen mariage yal leen yàlla di defal jàmm saa su ne rek. mais or mi loolu man aussi li ma lay waxaat encore rek mooy euh, ñun buñ ñu yablu ñun lafañ yi te moom jabaram mooy lafañ donc ñoom buñ ñu yablu nañ ñu respecté aussi ñu xool euh, ni muy rafet ni muy rafetee ñun niñ koy niñ koy niñ koy imposer woo rek ñu kon ne ñoom ci noonu ñu imposer suñu bopp jëkkëram au contraire daf ko waroon di pousser à ce qu'on la respecte à ce que ñu koy bañ a di kii parce que moom mooy góor moom jëkkëram moo waroon taxawee taxawaay boobu épaulé ko maanaam ñu bañ a jabaram di bañ a ñaan wala ñu koy yàpp wala di ko wax yenn yi parce que bukki bu ko gaynde yebee rek ci doxin bala donc na recadré waat jabaram ñuy liggéey daan seen doole àdduna liggéeyee maye nit ki lañ lay may day jeex te maanaam alaluk may du toog du tak fenn donc nañu recadré seen bopp dem liggéey seen liggéey te nekk ay nit quoi en dañ nekk ay nit waaw nañu liggéey tey Mouhamed joxe nga anecdote sur la toile par rapport ak bi nga amee accident bi par rapport ak aussi bi nga commencé say activité mu nekk diggante yow ak sa wayju bu góor est-ce que mun nga ciy reveniraat ci marché Thiès bi ngay jaay. bon loolu histoire boobu euh, euh, bi après sama accident bi mu defee ay ay trois mois décembre jot. boobu maay kon ni di faju toujours dama xëy euh, dama xëy dem marché di liggéey jour 31 décembre di jaay yére so man ci loolu laay yëngu ba léegi sax loolu laay yëngu moo tax man jaay rek laa xam jaay moo yàq d'ailleurs su ma jàng et j'étais à l'école sama yaay lenn la ma dul baal ci àdduna muy bàyyi jàng waaye parce que dama mënoon jàng trop sax man biñ may dàq collège Saint-Gabriel bu cees tableau d'honneur lañ ma dàqee une moyenne de douze te boobu fekk na j'étais pas assidu benn ñaareel bi dama nekkoon di semer juste la merde dans l'école et tout ñu dàqee la tableau d'honneur xam nga voilà donc te daanuma jàngi dama daan toog ay quatre mois duma jàng si te bu composition jote tableau d'honneur la moyenne douze biñ may renvoyé école donc euh, euh, mu nekk loo xamante ni euh, histoire bu ma marqué la ndeysaan bi ma rombee may jaay fëgg jaay mu ne ma looy def fi ma ne ko ah man de nekk di jaay fëgg jaay ndeysaan c'était la deuxième fois ma gis suma papa di tuur xéwal mooy jour bi may génn hôpital la doon jooy ak jour bi ma rombaatee ci marché bi ma ah, yow de mbay yow jàmbaar nga de yëkkati cinquante mille daat may may voilà après affaire bi ça l'a ça vraiment touché tout voilà mu ngi noonu ko mënee vie bu différente par rapport ak avant accident bi dund nga ko ci say proche dund nga ko sa entourage wala dund nga ko ci sa liggéey. non sequma ko kenn man kenn damaa yabeewul noonu sax noo du question de pànk sax jarul may wax ak yow wax ju bari daga may gis ni may doxee rek nga xam ni am na yoo xam sañoo ma ko wax donc wala nga may stigmatiser wala di ma effronter wala di ma. jàll baat yoo xamante ni du yoon seexuma ko kenn mayuma ko kenn ah voilà mu ngi noonu dépp ma li dale ba léegi xanaa suma xarit yi ñoom wax waaye lafañ li yeeg lii nangam taan li yeeg parce que dama ko seex ak ñoom mais hormis loolu seexuma ko kenn voilà dañ lay gis aussi ngay dem extérieur di participer à des événements di véhiculer di partager vidéo yi sur la toile est-ce que mun ngaa revenir un petit peu ci activité yooyu contact yi et tout. bon Europe euh, dama fay dem ay compétition parce que je suis athlète de l'équipe nationale du Sénégal dama fay dem ay compétition euh, dama fay euh, dem aussi pour samay soxla bopp lépp rek gëm suñu bopp moo ñu ko may. donc euh, avec mon PDG Macoumba Touré Sarr sama capitaine d'équipe nationale mooy ki nga xam ne Doumbouya moom la recevoir on ñoom ñaar ñoo nekk doon légion étrangère bu France voilà ñu nekk doon ñoom ñaar aussi euh, armée française après bi mu ñëwee jam ñaaj ñu gisante après par la suite daf ko invité la semaine euh, de suite def ko invité Conakry foofu lañ julee ñoom ñaar parce que mook Doumbouya xamante nañ bu baax xaritam la donc kooku rek c'est un homme valeureux boo xamante ni il a beaucoup de qualités voilà euh, entrepreneur chef d'entreprise yor ay ay employé mais tout Macoumba Touré Sarr ñu koy wax ins boule dafa nit ku digne doon lafañ xam nga mais très digne man moom ci moom lay référé wu man ci moom maanaam nit ñi dañuy jële ci man mais man moom mooy suma royukaay quoi en fait voilà digne euh, mooy suma capitaine d'équipe euh, xam nga di ñu jàppale ci lu bari di ñu épauler di dimbali les personnes yoo xamante ni dara jotu leen ak aussi personnes handicapées yi xam nga d'ailleurs nii nii sax mu ngi waajal di dem Guinée day pédale vélo tëdd bi loxo yi la koy pédale ba Guinée <clears throat> ñu ngi départ incha allah lundi prochain bu ngeen mënee ñëw ngeen jël événement bi ngeen jël ko voilà lundi prochain incha allah dañuy départ fii Sénégal Dakar pédale ba Guinée ak loxo yi. xam nga pour dem rendre hommage à monsieur le président de la République de Guinée monsieur Mamadi Doumbouya aussi pour euh, tisser les liens retisser les liens entre le le Sénégal et la Guinée voilà. <coughs> message avant ñuy tëj euh, li nga xam ne mooy interview bi ak le nouveau président ak situation des personnes vivantes avec handicap. bon li ma ci wax mooy monsieur le président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay à ce que ngeen bàyyi xel handicapé yi parce que liir naa seen projet bi handicapé yi euh, dugal nañ leen ci biir donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose de transparent mais na am suite ah dañ leen koy ñaan voilà na am suite te aussi am nañu ay kilifa yoo xamante ni fii c'est des personnes parce que mënuma concevoir tey ki lafañul mënoo ko boole ki lafañ mu koy jiite wala mu maanaam du am yërmande yi def ca moom la ko war bokkut ak lafañ bi nga xamante ni suur na regg na ko ci mel ni Macoumba Touré Sarr bul dafa ñu jël ko teg ko ci li nga xamante ni tey jii boole ko ci gouvernement bi pour lafañ yi mu leen di jàppale comme yàgg na ci comprendre nga des fois nit ñi dañu may interpeller sax naan ma yow de état waroon nga ci bokk wala ñu def la dara wala mais je le mérite pas parce que am na ñu fi gën a nekk xama gën ma jàmbaare gën ma mën a def lu baax man man face devant eux xam nga du dara ci ñoom quoi donc état bi nañ bàyyi xel que ni am na des lafañ yoo xamante ni c'est vraiment des gens yoo xamante ni euh, hmm, euh, comment dirais-je ñun on est de bonne volonté et de bonne foi pour dimbali lafañ yi donc voilà te nit ki moom yaakaar naa ne boo wootee liggéey ci ñi nga xamante ni commencé nañ liggéey bërki démb bërkaati démb ñun boo duggee suñuy kon tout le temps dañuy jël suñu xaalisu bopp di jënd ay pousse-pousse ak ay beekee yooyu di ko maye ci ginnaaw rido bi fii ay cinq sept pousse sept beekee ngi fi ak ñaari pousse-pousse maa ko nëbbee rido bi nii di ko maye yu bari la woon ñu maye ko ba mu toll foofu donc euh, son excellence ñu ngi lay ñaan euh, nga bàyyi xel sa doomu dëkk yi nga xamante ni ñun ñu ngi liggéey te pourtant xaaruñ ci kenn ci dara suñu alalu bopp la ñuy jël di ko liggéeyee ko dimbalee suñu moroom yi ah, waaw mu ngi noonu jërëjëf ma leen gën a kontaan jaajëf